bi ngeen di def fii ci ci leeral mhm. point net mhm. euh, muy loo xam dama koy suivre partout en Afrique fu ma mhm. nekkee en Afrique euh, par satellite euh, ou bien par câble bu ma nekkee à l'extérieur en Occident di ko seetaan en ligne di rafetlu seen liggéey di di di leen féliciter dama bëgg aussi boo ma ko mayee dama gis sànq dama nekk ci ci salle d'attente ma gis benn jeune boo xamee ne ti euh, dafa doon liggéeyee fii. Mhm. ci li ma comprendre. Euh, yàlla def mu bëggoon a tukki. Mhm. Euh, far mu jaare fa ñàkk bakkanam mhm. di ko jaale mbokkam yëpp. di ko jaale kër gi. waa leeral di ko ñaan ñaan yàlla. mu xare ko àjjana. jërëjëf président jërëjëf merci beaucoup en tout cas ci témoignage yeeg jaale bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors président nan nga jàngatee situation actuelle lu Sénégal jamono ji surtout sur le plan politique. bon situation au Sénégal dafa mm. xaw a euh, dafa xaw a jaxasoo. Mm. Euh, li tax mu jaxasoo mooy dañu am ay recul sur le plan démocratique. Mm-hmm. recul yu bari te loolu euh, du lu ñuy rafetlu. waaye euh, euh, situation bi li ko gën a waral ci suñu gis-gis mhm. mooy euh, manque de leadership waaw dañoo am crise de leadership mhm. fu ñu toll nii mhm. loolu mooy indi yenn errements yi te loolu tit moo tax le 7 février le 7 août passé Euh, ma def déclaration au nom de l'Union sacrée du Sénégal, mais soxla naa incha allah Euh, euh, déposé sama candidature à la candidature mhm. euh, ngir dem ci élection yii di ñëw pour mhm. ñu mën a transformer Sénégal mhm. teg ko ci ay loxo yu set teg ko ci ay loxo yoo xamante ni am nañu expérience loxo yoo xamante ni bu ñu leen joxee réew mi lu ñu làmbatu parce que am nañu expérience boo xamante ni dinañu mën a commencer liggéey waaw loolu moo moo waral ñu ñu def suñu déclaration de candidature et j'espère que dinaa am euh, di ma may tuuti temps. Hmm. pour ma gën a expliquer. incha allah aux téléspectateurs lan mooy dinañu ñëw sabab bi. waaw dinañu ñëw ci sabab bi ndax ci loolu laa doon ñëw sax est-ce que da nga jàpp ni loxo yi Sénégal nekk ba jamono ji ñu toll nii du loxo yu du loxo yu set. wala da nga jàpp ni am na lu am na ci ay loxo yu set. lu set munoo wax ni ñëpp euh, nga def leen ci benn panier. waay waaye système bi ci boppam. Hmm. moo setul li tax ñu ne système bi setul. mooy boo xoolee misaal bi gën a yomb ci yi nga xam ne nit ñi dinañ ko mën a comprendre. Mhm. mooy Sénégal politiciens yi ñoom ñooy milliardaires yi ci Sénégal. loolu moo tax ñëpp ñu ci gën a bëri. Mhm. am na ñoo xam ne sax ay politiciens professionnels lañu. Mhm. parce que dañu yaakaar ni booy def rek. waaw voilà bu ñu tàbbalee poste ministre wala directeur général waaw ci ci du du yàgg sax nga nekk milliardaire. Euh, loolu daf lay daf lay day genre misaal la rek pour xamal nit ñi que. Euh, euh, euh, réew mi ni mu war a doxee dëgg-dëgg doxewul noonu loolu moo tax dafa bëri corruption dafa bëri fraude c'est vrai que am na ay mécanismes yoo xam ne dina xeex loolu waaye doyul waaw. am na loo xamante ne xëy na ñun dañoo jàpp ni kuy déclarer sa candidature rek da nga ko gis ba bëgg ko xeex. Mm-hmm. lan la ci ci ci selon yow. li li ñu gis moo bëri déjà Sénégal yi dañu sonn. Sénégalais yi dañu sonn boo gisee xale yi di dugg ci ay gaal di dem à l'extérieur mm. mu wóor leen ni am na ay chance yu rëy yoo xamante ni mm. du ñu yegg fañ jëm mm-hmm. mais malgré tout dañuy jël risque boobu rien que pour mën a tukki mais loolu bu ñu koy def mm. am na lu tax ñu koy def benn désespoir boo xamante ni. bu ñu xoolee réew mi nu ñu koy doxalee. mais da ngay gis rek les riches. mooy ñan mooy tout petite minorité inégalité mm-hmm. dafa bëri. Mm-hmm. mais les inégalités nag si boo ko xoolee ci Sénégal da gis. Mm-hmm. minorité bu ndaw. boo xam ne ci gën a bëri ay ci politique la ñu nekk. ñooñu ñoo nekk milliardaire di wane xaalis di alors que la grande majorité ñu ngi souffrir. Ah loolu moo indi xale yi di di jaay seen bakkan di dem à l'extérieur. pour mën a tekki. très bien très bien président lan moo tax ñun sénégalais yi ñu mën a jàpp ni celui qui est là depuis 2012. il a il a il a fait des erreurs wala boog am na failles yu bari pourtant ci li mu gën a xeex bokkuñu ci politique de jeunesse ak pas mal de structures yu mu teg ngir ndaw ñi am liggéey am na ci pas mal de d'organisations yoo xamante ni ñëwoon nañu sax Sénégal di dimbali di dimbali ndaw ñi sur le plan international donc qu'est-ce ce qui s'est réellement passé selon yow ba tax yow sa politique nga bëgg ko accès ci li nga xamante ne moom moo di ndaw ñi am. am na loo wax léegi loo xam dafa am solo. Hmm. da nga pas mal de d' agence ay structure dañu bëri structures yi déjà dañu bëri woon à un certain moment foog nga consolider. Hmm. pour nga mën a am une une une visibilité. ci yow politique yi ngay doxal. ndax mu ngi marché wala marché wul. Hmm. bu fekkee ne nga am. Euh, dix agences yoo xam ne bu ci nekk mu ngi def liggéey mu ngi liggéey ci ci ci ci domaine boobu euh, non seulement loolu c'est pas c'est pas efficace mais en plus dafay dafay tax doo xam réellement kii fait quoi donc euh, am na ay jéego yu ñu ci def ça c'est vrai am na ay jéego mais jéego yi dañu tuuti trop comparé ak problème bi mm. waaw démb maa ngi gis que les chiffres de l'ANSD ci recensement yi passé que dix huit millions de sénégalais yi boo xoolee li ci gën a bëri ay ndaw la ñu ne soixante quinze pour cent xaw ma à moins de trente trente quatre ans quelque chose comme ça et ñu am dix neuf ans yëpp c'est presque la grande majorité ce qui fait que nous sommes une population extrêmement jeune te jeunes yooyu ñi ci gën a bëri dañu nekk ci marché du travail dañu bëgg liggéey am si ñoo xamante ne nag euh, euh, euh, amuñu formation buy war a mën a tax ñu am yenn liggéey. Mhm. d'où l'importance de créer de la formation professionnelle. Mhm. de xale yu ñu tàggat leen ci ay ay ci ay at ci ay métiers. Mhm. tàggat leen ci ay formation professionnelle yoo xam ne. bu bu ñu paree dinañu mën a liggéey. d'accord président nan nga jàngatee est-ce que loolu moom moo waral tey ku jug rek bëgg nekk candidat euh, docteur Ousmane Kane bëgg nekk candidat ah keneen keneen bëgg nekk candidat alors euh, léegi candidature yi génn fël fu nekk nan nga ko jàngatee. bon d'abord pour man euh, am na lu ma ko gisee noo xam ne c'est plus positif. Mm. ndaxte pour man déjà signe la ci vitalité wu démocratique wu réew mi. siñ la aussi ci liberté li ñu am. pour mm. participer au débat politique. ay ñaari fan ñaari at yi passé mm-hmm. dañu gisoon benn euh, euh, bipolari mm-hmm. bipolarisation mm-hmm. de l'espace politique loolu lañu xawoon a gis waaw léegi situation bi dem na ba Sénégalais yu bëri ku ci nekk jàpp na ni moom buñ ko joxee réew mi mun na doxal man nag li may wax mooy c'est euh, lu lu lu lu lu am importance la. mooy que ni aspect boobu moo am importance mooy que nii réew. kenn mënul wax ni rek diw ak diw rek ñoo ko war a mën a yor loolu mënul nekk dix-huit million de sénégalais. ñu ne ñaari nit wala ñetti nit wala juróomi nit. Mm. ñooñu rek la ñu war a bàyyi. Mm. ñu yor réew ñu ñu essayer yor réew mi. Mm. te boo xoolee ñooñu yëpp boo xoolee ci ñaari parti lañ jógee. te boo xoolee sax ci ñi deux ans et poussière yi ñuy wax nii. boo xoolee ci gën a bëri. ci ñaari parti yooyu depuis indépendance ba léegi. ci ñooñu foofu la ñu jógee. parti démocratique sénégalais ah. parti socialiste. yow yaa ko tudd <laughs> yaa ko tudd léegi nag. dañu toll foo xamante dañu dañu war a def benn changement de paradigme. Mm. changer système bi fi nekkoon depuis 1960. te loolu la ñuy continuer di gis. Mm. alternance politique bu fi amee c'est très bien. Mm. mais duñu gis que. alternance réellement mm-hmm. du fi am parce que mm-hmm. ni ñu doon doxalee depuis 1960 ñun ñu nekk ay ndaw ba léegi loolu la ñu gis ñu ñu doxalee réew mi mm-hmm. donc il faut que ay sénégalais yi nga xamante ni dañu da yàlla daf leen may xam-xam wala mu may leen expérience fu ñu mën a toll ci àdduna bi war nañu intéressé wu ñi ñi ci mën a impliqué wu ñu ñëw impliqué parce que Sénégal moo ko moo ko moo ko laaj tey moo laaj ñëpp ku koo xam ne doomu Sénégal bu nekk ñëw xool nan ngay participer ci développement au Sénégal. très bien président nan lañ la mën a distinguer ci biir ci biir candidat yëpp parce que candidat yu bari nañ si sa programme lañ la lañ la mën a distinguer ràññatle la ak ñoom wala si charisme bi wala si parcours bi wala si background bi fan lañ la mën a. wax nga loolu wax nga ko loolu lépp la <laughs> yëpp combinaison. yooyu yëpp <laughs> waaw combinaison yooyu yëpp la. Ah. mais dama buggoon wax rek. Mm. que déjà ñun approche bi ñu ñëwee. Euh, euh, dinañu distinguer ak lu ñu fi fekk lu ñu fi fekk ak lu ñu fi yàgg a gis. comment mooy d' abord euh, dañuy privilégier le mérite mérite. Mm. du ko boo ñëwee ñu jox la nguur gi nga jël say xarit yi di leen teg fu nekk ah l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. népotisme. waaw népotisme daf fi bëri co corruption daf fi mm. te ñun jàpp nañ ko ni kenn mënuñu wax ne yéen mos mos lañ leen jox. poste bi ngeen jël ci xaalis wala ñu juñ leen ci lii wala loolu loolu dinañu distinguer ak ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi def euh, campagne bi fu mu nekk nii sax ci xaalis boo xamante ni ci ci kenn xamul fu fu mu jógee loolu c'est benn la beneen bi mooy yàlla daf ñu may expérience waaw daf ñu may expérience ci domaine yoo xamante ni tey Sénégal daf ko la may nañu expérience ci dox jàmm dox nañ jàmm ci ay réew yu bari yàlla may ñu expérience ci relance économique nekk na Côte d'Ivoire quatre ans yoo xamante ni boobu réew mi demoon na ba nërmeelu bu demee ba ba ba situation bi xaw a calme ñun ñoo coordonné avec les bailleurs de fonds avec les les partenaires internationaux pour liggéey pour relance économique bu dëkk bi donc yàlla may nañu foofu expérience may nañu expérience aussi ci euh, euh, réforme des institutions waaw Euh, may ñu expérience ci justice nan la ñu def ba justice mën a jaar yoon mu bañ a am ay parparloo parce que justice liggéeyam te du ma wax lu bari ci ci ci justice Sénégal parce que man dama dama légaliste dama respecte justice waaw lu ñu lu ñu lu ma gisul wala liiruma ko mënuma ci wax lu bari mais ce que je veux dire mooy en plus d'être une justice euh, euh, neutre mais dafa war a joxe aussi impression boobu population bi ñu am impression que justice bi dafa neutre. Mhm. waaw loolu am solo la. est-ce que vous pensez que nous n'avons pas une justice indépendante. bon loolu euh, euh, euh, mën nañ wax ni. Mhm. justice yàlla def na suñu les pères fondateurs. Mhm. bàyyi nañu dëkk boo xamante ni. nit ñi dañ ko naw. ci ay fànn yu bëri. ci fànnu état de droit. fànnu démocratie alternance politique yooyu yëpp nit ñi dañ ci naw en Afrique. waaye dañu seetlu que ci at yi passé justice bi dem na ba population bi seen bopp ñooy am impression mm-hmm. que justice bi dafa dafa am fu mu far waaw population bi ñooy sentir loolu ñu bëri en tout cas majorité ñu bëri dañu koy wax mm-hmm. dugg nañ ci réew mi waxtaan nañ ak nit ñi ci quatorze régions yëpp mm-hmm. mais booy wax ak nit ñi loolu dafa bokk ci seen bëbét donc c'est important que le chef de l'exécutif te yoolu yàlla bu ñu defee ba ñu jël nguur gi le chef de l'exécutif muy chef de l'État du du bokk ci de conseil de la magistrature parce que loolu dafay am loo xamante ni même si c'est symbolique nga bàyyi magistrature bi ñoom ñu joxal nga loolu mooy di nga respecter la séparation des pouvoirs mais mënoo nekk chef de l'exécutif mm-hmm. yow yaay incarner le pouvoir exécutif mm-hmm. ba pare ngay dugg ci pouvoir judiciaire mm-hmm. loolu pour man dama jàpp ni même bu dee sur le plan symbolique. Mhm. dafa am na mu yàq ci séparation des pouvoirs. donc ñun jàpp nañ que ni loolu warul nekk. te justice danga ko war a bàyyi. mu mhm. def liggéeyam warul am. Mhm. Euh, par parlo mais nag. loolu bu ma ko waxee ba pare. foog ma wax que ci fan yi dégg nañ fi ay jugement yu bari yoo xamante ne àndul ak nguur gi. foofu laa doon ñëw foofu laa doon ñëw donc ça veut dire que suñu justice. lu ñu mën a wax yëpp. ñun en tout cas euh, Afrique yëpp. naw nañu ci justice ak état de droit donc ñu ngi ñaan yàlla mu continuer waaw te ñi acteur yi fi nekk nag. Mm. di incarner justice. Mm. ñu ngi ñaan yàlla ñoom it ñu def seen kéemtalaay kàttan. Mm. pour justice continuer di liggéey. ci nu moo war a liggéeyee. très bien président yaa ngi bëgg a laaj Sénégal keneen ak keneen mi ngi bëgg a laaj Sénégal aujourd'hui on a vu que il y a mënuñu ci ñàkk bañ a wax parce que moom moom bokk na ci. li tax tey jii euh, euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu am sur l'international ñu am ci bët bu rëy rëy wala bu yaatoo yaatu nit yi di ñu bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. muy président ex-Pastef bi di Ousmane Sonko aujourd'hui il est incarcéré pour problème yi mu am ak yoon ak benn xale bu jigéen ak Mame Mbaye Niang et cetera mm-hmm. dossier yu bëri daal di daje ci kawam mu nekk di def grève de la faim et gis nga li ci aju yëpp Sénat aujourd'hui jël décision ne nañu waat turam ci biir listé électorale yi mu mën a voter ñu mën ko voter pour que mu mën a jël euh, fiche parrainage pour que peut-être mu mën a bokk ci élection présidentielle yi euh, wala bokk euh, parcours cet homme politique la ba aujourd'hui ndax da jàngat ni tey jii mënoon na bañ a si fii wala fi mu àgg ni justice moo ko fa yóbbu tout simplement yaa a rien de politique bon loolu question bu am solo la mm. parce que dafay topp rek question bi nga doon wax sànq ci affaire justice Euh, li ma mën a wax mooy Sénégal Sénégal état de droit moo fi nekk. Euh, euh, justice warul am par parloo te lu may wax yépp man dama bëgg teg ko ci droit wax nga sànq Sénat pour man Sénat bu defee injonction mu wax ne direction générale des élections mm-hmm. ne joxe fiche de parrainage mm-hmm. à un candidat mm-hmm. Euh, mu ngi ci rôle am parce que ñoom ñooy superviser di contrôler le processus électoral y compris oui. le fichier électoral mm-hmm. te ci li ma comprendre fichier électoral bi dañu ci génnee monsieur Sonko mm-hmm. et bu ñu ko ci génnee y un juge qui a dit que loolu du décision boobu du décision bu baax mais puisque nag Sénat dafa nekk ci situation boo xamante ni moom non seulement mu ngi ci rôle mais le code électoral aussi may na ko mu saisir les juridictions euh, euh, euh compétentes mm-hmm. man yaakaar naa ni dinañ dinañ ko def dinañu saisir mm-hmm. parce que ñoom ñoom ñoo bind lettre parce que j'ai j'ai gisuma lettre bi nag mënuma mm-hmm. ci wax lu bari mais gis naa lettre bi nga xam ne mooy réponse euh, autorité administrative bi en réponse à la lettre. donc puisque gisuma lettre boobu mënuma ci wax mais li ma gis ci réponse bi. Mm. wax na ma ni que ni sena bi dafa wax pour mu pour ñu réinsta ki ko jox ko. pour ñu jox ko le le fiche de parrainage. ñoom it dañu ne moom nekkul ci fichier bi. Mm-hmm. alors que kii laajte noonu Sénat muy commission électorale euh, nationale et autonome. Mm-hmm. ñoom dañoo am rôle boo xamante ni. Mm-hmm. tamit mënuñu ci génn. parce que ñoom ñooy superviser no que ñooy superviser di contrôler te jàpp nañ que ni am na autorité administrative bu violer mhm. la loi mhm. ñoom war nañu mën a saisir les juridictions compétentes mhm. waaw tant que defuñu loolu nag day day nekk genre spéculation mais ñu ngi xaar que ñu def loolu wala bu dee du ñu def loolu aussi ñu ngi xaar que euh, les les avocats aussi def seen liggéey ñu xool lan la lan la euh, euh, justice Sénégal lan lay wax ci loolu. très bien poli euh, politicien bu nekk wala boog candidat bu nekk parfois am naa ci euh, ay candidats yu bari yu toog fii mais dañu ne ma dañuy joxe seen xalaat ci la situation du du, du président de l'ex-Pastef yow tey jii président su nekkoonte ni tey da nga am benn euh, peut-être xalaat boo xamante ni da nga koy jox ki nga xamante ni moom mooy situation président ex-Pastef lan lan lay doon dans la généralité. mais man damay regretter déjà. que mu nekk situation. situation bu mu nekk parce que euh, dafa jouer un rôle important ci ani at yi passé ah. dafa nekk koo xamante ni il est incontournable ci paysage politique donc euh, ak li mu am ci dayoo ak ni ko xale yi jeunes yi yu bëri uh-huh. jeunes yu bëri toppee euh, normalement xalaatoon naa mu nekk feneen fudul ci kaso bi tey mais puisque justice la wax te man dama xaw a aussi bëgguma di wax justice bi nii wala justice nii mais li ma li te surtout que gisuma dossier bi. Mhm. mais li ma bëgg wax ci loolu rek mooy. Mhm. Sénégal dëkku yoon la. Mhm. nañu bàyyi yoon mu def yoon mu def liggéeyam. te mu bañ a am benn influence. yoon rek def liggéeyam comme nu mu ko waree. comme li ñu gis ci fan yi nga xamante ni ay ay jugement yu positif la. yoo xam ne positif ci moom. ak lu mu doon ñaan ñu ñu ñu ñu nangul ko ko. donc maa ngi ñaan que loolu mu continuer parce que élection yi di ñëw nii. ñun ñaan nañu yàlla ñi ci war a bokk yëpp bokk ci ñi nga xamante ni euh, euh, euh, ñoom am nañ disons li li li yoon laajte pour ñu mën a nekk candidat yëpp am nañu ko. Mm. nañ ñëpp war nañu ànd war nañu ko def. kon mais mais président deux cent deux <laughs> dina doy waar de. <laughs> bon deux cent candidats. non non bi am na loolu bien sûr que bien sûr que parrainage yi leen di départager parrainage ak yeneen mais dama bañ aussi Sénégal ñuy wax ni deux cent candidats euh, euh, euh, di ko critiquer parce que li ñuy wax par exemple nit ki am audace de son ambition mm. xam nga man mënuma toog fii di wax ni diw wala diw wala diw waruñu mën a nekk candidat mais loolu mm. fu ma ko teg très fu ma ko teg xaw ma fu ma koy teg mm. donc ay sénégalais lañu am nañu ay Euh, am nañu ay projet de société ay vision yu ñu am ci Sénégal ils ont le droit di laajte réew mi te bu bu ñu defee parrainage am seen i parrainage am seen caution am seen casier judiciaire yëpp dañu war a nekk candidat parce que candidat yi kenn warul mën a wax ni rek dañu war a génn ci parti bi ak parti bi ak parti bi pour lu lan loolu vraiment loolu moom man ànduma ci te waruñu reetaan aussi ay candidat nit ne dama bëgg a liggéeyal sama réew ñu naan bon dafa bëreeg dafa loolu day saboté sax ak fu mu jógee waaw ak fu mu toj fu mu jógee mm. bon euh, euh, ñun li ñu mën a wax mooy yàlla may nañu expérience mm-hmm. yàlla may nañu am njàng yàlla may nañu bëgg suñu réew mm-hmm. yàlla may ñu tamit ñu mën a sacrifier lu bari <coughs> pour ñëw Sénégal pour pour pour pour ànd ci liggéey bi donc mm-hmm. <coughs> keneen noonu keneen noonu mais ku ci nekk koo xamante ni euh, ñi nekk candidat yëpp mm. bu fekkee ni xam nañu mm. réellement le rôle du chef de l'État bu fekkee ne pare nañu pour nekk un chef de l'État parce que seen vécu ak seen expérience may na leen ko loolu moom kenn mënu ci wax dara parce que chef de l'État fonction yooyu du fonction du n'importe quelle fonction foog nga xam réellement li lay xaar nga en même temps nga am euh, euh, euh, nga am kàttan mu wóor ni yow am nga kàttan pour yorum réew nga am les les les les compétences yooyu yëpp c'est important mais ñooñu bu ñu amee loolu boo war am na ñu droit laajte am réew. très ah, mais nag moo moo wax ci parrainage. parce que nga baal ma tuuti parce que mm. parrainage bi. Mm. ñu ne wax day départager day dàpp wala day wàññi. Mm. loolu lañu ñu fi loolu vraiment war nañu ko bàyyi. pourquoi li tax ñu ko war ko bàyyi mooy euh, euh, euh, parrainage bi dafa fi mu nekk dañ ko dañ ko xaw a dénaturer dañ ko dañ ko yàq. dañ ko yàq. pourquoi léegi def boo demee ci terrain bi parce que man ci terrain bi laa jógee dafa mel ni léegi marché ko waaw comme buy dem marché rek. Mhm. dem di waxaale ay parrainage ñii di jaay fii ñii di looloo fi am. Hmm. waaw looloo fi am looloo fi am am na ñu bëri ñoo xamante ni te loolu dama koy wax parce que c'est une réalité ñëpp xam nañ ko. Mhm. waaw am na ñoo xamante ni dañuy def ay collect am seen i fiche de parrainage yu bëri ñëw ci yow ne la léegi ñun man kee laa léegi moom bu fekkee ni yow da nga da nga da nga may da nga ma mën nga ma dimbali ma jox la ko. xam nga loolu forme loolu dafay vraiment dafay yàq lu bëri dafay yàq lu bëri mm. euh, donc il faut que ñu ñëwaat ci ci ci euh, fondamentaux yi mm-hmm. fondamentaux yi mooy c'est normal que ñu def parrainage mm-hmm. waaye nañu bàyyi nit ñi ñu dem ci euh, région yi c'est vrai que nag man bu ñu commencé suñu campagne parrainage ba léegi moo suñu am problème mm-hmm. mësuñu am problème waaw fu ñu dem euh, euh, libre circulation amul benn problème mosu ñu taxawal mësuñu arrêté suñu convoi. Mm-hmm. ñu ngi dem ci quatorze régions yëpp. yéen a ngi am ay signature. waaw bien sûr man bien sûr que ñu ngi am ay signature. mais président am nga ci yaakaar signature yi ne dina la jàllale. ndax dina. ndax dina la jàllale. non bu signature yi dafa am nombre de signature yoo soxla. le minimum ak le maximum. donc ñun wóor nañu ni. ci ñaar yooyu ci diggante ñaar yooyu dinañ ko am bu soobee yàlla. te ñu ngi ci di ah. di liggéey ci quatorze régions yëpp. ñu ngi dem fu nekk di def ah. euh, di def tournée. Ah. Euh, bu yàggul lañ jóge au nord. donc euh, ñu ngi def tournée pour pour massifier en même temps aussi. di sensibiliser di ci profiter di expliquer aussi les populations. lan mooy suñu projet de société. lan lan lañ bëgg a def pour Sénégal. très bien président ndax ndax mën nga ma wax euh, ndax vous jugez euh, li nga xamante ni moom mooy euh, parcours wala boog bilan président Macky Sall positif. bon loolu moom bu positif woon du ma toog fii tey. non non non am na ay avancées. am na ay. Euh, euh, euh, ay avancé am na aussi lu baax lu mu def. Mm. surtout ci côté infrastructure parce que je vois. Mm. surtout ku kuy dem di ñëw. Mm. après di nga gis au fur et à mesure infrastructure yi. am na ci vraiment avancées yu bari. te loolu dafa commencé woon depuis euh, depuis la période de, du du président du président Wade. Mm. donc am na ay avancées ci côté boobu je pense que aussi mën nga xool ci côté yu bëri nga ne bu fekkee ne da xool ci statistique nga ni bon am na ñu euh, euh, am nañu croissance. Mm -hmm. depuis bu mun depuis 2012 et tout ça. Mm. loolu mun na ci et surtout rapport au FMI bi aussi. rapport au FMI. oui. Mm. par rapport par rapport à li nga xamante ne joué na ko ci sur le plan international surtout li nga xamante ni démographiquement Sénégal taxawee na ko. effet mhm. ba mu génnee rapport am dafa dafa dafa tàccu Sénégal en en en quelque sorte. bon euh, loolu laay wax léegi nii xam nga euh, croissance. bu ñu wax naan croissance à deux chiffres te loolu yàgg na fii depuis 2012. Mhm. on voit que euh, am nañu une croissance soutenue. boo xamante ni loolu mun nañ ko tàccu. mais croissance aussi dafa war a doon loo xamante ni da nga koy gis. Hmm. d'abord ci panier de la ménagère. nga gis ko ci nit ñi ni ñu dundee. nga gis ko ci les jeunes. Hmm. waaw mais croissance boo xamante ni dafa croissance bi dafa am ñu mu nekkal croissance. Hmm. Euh, euh, la majeure partie de la population sentiruñu croissance boobu. bon <laughs> je veux dire que loolu taxul ñu wax. Euh, am na ay avancées. je moi je sais que le président Macky Sall a a fait de son mieux. maa ngi rafetlu aussi le fait que mu mu décider que ni moom du nekk euh, candidat euh, ci élection yi di ñëw mhm. loolu yëpp am na adduna bi yëpp dañ ko ci félicité et je pense que loolu c'est important de le dire am na liggéey bu mu def mais liggéey boobu matul waaw li tax matul nag dafa am ay garankoor yu bëri yoo xamante ni mënul mat te peut-être ñu am temps pour dugg ci loolu yëpp mais li ma li ma bëgg en général rek mhm. wax ko ni ñun dañu mel ne dañu tënk Sénégal mhm. ak dañu mel ni dañoo tënk li tax ñu tënk ñu dafa am yenn euh, fondamentaux yoo xamante ni tant que amul mënoo transformer sa économie. Mhm. waaw mun nga am ay euh, ambition d'émergence ngay teg ay infrastructure ngay endetté wu loolu yëpp mën a nekk. Mhm. mais <coughs> euh, développement bi ñu jëm fi ñu lu ñu bëgg réellement. Mhm. am na yoo xamante ni tant que jógewu fi loolu day jafe. te ma ci commencer par la corruption. la fraude. loolu dafa bëri parce que am na corruption dafay am lu mu bëri lu mu yàq suñu économie déjà mhm. ensuite ay ay facteurs yoo xamante ne mhm. du suñu coobare ñun rek mhm. parce que euh, euh, euh, bëgg naa wax tuuti ci le franc CFA xam nga franc CFA CFA ci boppam à l'origine CFA mooy colonie française d'Afrique loolu mooy CFA franc des colonies de françaises d'Afrique mais loolu ñëpp xam nañ ni loolu baaxul ci ñun. franc CFA baaxul ci ñun. et puis on est a été colonisé comme ça. waaw mais xam nga fu ñu tollee nii 2023. oui suñu xaalis ñun boo xoolee. colonie française d'Afrique c'est vrai que changé nañ tur bi changé waat ko coopération financière. lu mm. nekk def nañ ko. Mm. pour dindi euh euh, euh, euh, problème boobu parce que colonie française d'Afrique la la la tudd te boo xoolee aussi ba léegi loolu def ñu lié ak benn dëkk bu ñu naan France. France oui. ah te man Fran euh, euh, euh, duma ma damay dépassionné débat bi. parce que il est vrai que waxtaan naa ak ay économistes yu bari. Uh-huh. ci franc CFA. am na ci ñuy bind ay téere yu bari yoo xam ne dañuy expliquer réellement. Uh-huh. implication bi muy am. Uh-huh. ci développement ou sous-développement. boo xoolee li ci gën a li ci gën a simple mooy que. nga jël euh, euh, euh, le franc CFA nga xam ne dañ ko arrimé woon avec une parité fixe ci franc français ñu nekkoon zone franc ñoom ñu nekk zone franc ñu arrimé suñu franc CFA ci seen zone franc français n'est-ce pas en certain moment ñoom génn nañu franc français léegi dugg ci seen monnaie communautaire muy euro ñun ñu continuer am parité euh, am euh, euh, am am arrimage boobu. ci euro. te euro kat ñëpp xam nañu ni c'est une monnaie forte. te loolu boo jëlee monnaie CFA nga arrimé ko ci euro nga xam ne c'est une monnaie forte lii lii xew mooy. ñun du ñu am puisque amuñu de toute façon amuñu benn liberté wala autorité pour décider pour prendre des décisions sur ce plan. ce qui va se passer c'est que dañuy dañuy. Euh, dañuy importer. ci biti dañuy importer lu ñu war a importer dañu te te d'ailleurs importation yi dafa yéeg y a une hausse des importations. dañuy importer plus qu'on exporte. lu tax parce que li li cest à la cause numéro une c'est que parce que ñun dañu arrimer ci une monnaie forte qui est l'euro ñun li ñuy gën a def mooy jënd ci biti indi. parce que euh, euh, loolu mooy gën a yomb loolu moo tax la balance du paiement. Mhm. di dekk déficitaire tout le temps te plus loolu plus muy dem. Mhm. plus ñu nekk ci même situation bi c'est c'est un cercle vicieux. à mhm. un certain moment nag ñun li ñu wax mooy. bu ñu tëb rek ne ñu génn CFA parce que dañ ko am ñu ko seexal. mais il faut que ñu commencer. dès maintenant euh, teg le question boobu ci table bi avec suñu suñu ñu dëkkandoo yi ak suñu voisins yi. pour xool nan la war a mën a def que éco bi ñuy wax. mais à chaque fois ñu ne éco bi dinañ ko mettre en œuvre à chaque fois dañ koy. mais am na fu muy Mhm. am mais am na fu muy kuwaak fu muy fu affaire bi di bare ba éco bi mënaguñ ko mettre en circulation. absolument voilà donc président est-ce que jàpp nga ni euh, wax dëgg yàlla euh, euh, climat politique bi ñu nekk nii ak li nga xamante ne rek moom la mbir yi demee nii mën nañu am des élections libres inclusives et que tout le monde va y participer ndax jàpp nga aussi parce que ñu ngi gis Camara bu jëngu tabax wax ni il faut ñu ñu ñu. ñu ñu reculer peut-être euh, li nga xamante ne moo di élection yi euh, ci ci ci ay quelques mois est-ce que d'accord nga ak vision boobu ba pare est-ce que jàpp nga ni Sénégal pare na pour qu'en 2024 euh, février ñu def présidentielle yi Euh, en tout cas depuis que Sénégal mu nekk Sénégal. Mhm. ñu wax naan élection deux mille mille neuf cent soixante ba mhm. léegi. Mhm. mosuñu changé datu. élection présidentielle exactement. et euh, tant que amul ay raisons yoo xamante ni. raison yoo xamante ni euh, euh, euh, raison yu yu yu dëgër la mhm. waruñu mën a changer mhm. date u échéance surtout nag élection présidentielle mhm, mais loolu aussi pourvu que ñu mën a assurer que régularité élection bi parce que en réalité Euh, même parrainage yu ñuy wax nii. mais les les règles ont été changées ak ni ñu ko changé am na ñoo xamante ni ñooñu gis nañ que ni waruñu ko woon changé noonu. te foofu le processus bi di commencer. Mhm. et donc si y a des failles ci processus bi. Mhm. c'est normal que am ñu xalaat ni nañu jëlaat suñu temps. Eh, eh, eh, organiser waat bu baax. Mhm. la processus. ñu war a bokk ñu bokk. ñu war a bokk yëpp mën a bokk. comme ça ñu parce que kenn bëggul man de bëgguma gagner élection yoo xam ni dañu naan ah yow de bu diw doo ko doo ko man li may gënal mooy ma ma ñëpp war a bokk ñu bokk. man yàlla def ko ni sénégalais yi tabu ma ci bopp ci bopp réew mi. Mm-hmm. ma xam ne dama gagné free and square. ñëpp xam ne kii dafa waaw dafa dafa dafa. dafa moom moom dafa ñafe. Mm-hmm. gars yi wóolu ko jox ko affaire mm-hmm. mais munoo munuma xalaat ni. en tout cas. man li ma gisagum nii. même si am na ay ay dysfonctionnement. ci processus bi. li ma gis mooy que élection normalement dafa war a am en en deux mille vingt quatre. en février deux mille mm-hmm. te euh, processus yi nga xam dañ ko enclenché. Mm-hmm. ak euh, appel yeek euh, ak ak cas yi nga xam ne dafa nekk ci tribunaux yi. Mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla ñu mën ko évacuer. de telle sorte que ñi war a mën a bokk yëpp mën a bokk. Euh, mhm. ci élection yi. d'accord ñu mën ko ñu mën ko doxal en en deux en deux mille vingt quatre. Mhm. ndax jàpp nga ne sur le plan sécuritaire le Sénégal est vraiment ndax ceinture de feu lañ ñuy wax ne fa la ñu nekk vu également situation bi nga xam ne jamono ji carrément ñu ngi ci mooy dañu nekk ci dëkk boo xamante ne bari lu njëkk yi on nous dit que ce sera en deux mille vingt quatre incha allah. Mhm. donc est-ce que jàpp nga ni sur le plan sécuritaire le Sénégal am na protection bi war parce que président Macky Sall quoi qu'on puisse dire il a à essayer tant soit peu de sécuriser un tout petit les frontières. waaw loolu la xam nga euh, li nga wax léegi euh, ceinture de feu bi euh, c'est la bonne expression parce que dañu wër ñu ñu wër yépp dafa nekk ci ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu foog ñu xool aussi lan moo nekk à l'origine lan moo ko causé foog ñu xool li ko causé am na su fekkee na xool jafe-jafe par exemple. Euh, les coups d'état militaires yi ñuy gis ci ci suñu mbokk yi nekk suñu ci ci euh, ci Afrique de l'Ouest boo gisee loolu c'est parce que tout simplement dafa am ay ay hommes yoo xam ne dañuy def ay tripatouillage mhm. tout le temps ci constitution bi pour am troisième mandat wala pour euh, influencer ay élections wala loo xamante ni bu ñu demee ba mu yàgg nit ñi dañu naan dootuñu leen gëm dootuñu am sax respect ci ñoom donc autorité même autorité bi ñu war a am duñ ko am loolu nag bu demee ba commencé yàgg loolu mooy indi lu mel ni euh, tak euh, militaire jéngu euh, moom it ne kon xaaral ñu jël réew mi organiser une transition le temps que ñuy voilà le temps que donc man moom dama contre loolu man dama contre coup d'état militaire parce que pour man ku koo xam ne dañ ko élire démocratiquement waaw waaw askan bi ñoo ko wóolu jox ko nguur gi kooku amoo droit dem parce que yow da nga yor ay ngànnaay nga ñëw jële ko foofu ñëw toog loolu moom vraiment man d'accorduma ci mais damay wax rek cause bi lan la mais bu sekkee ne affaire euh, yan yeneen yii la comme lu mel ni les les les les groupes euh, terroristes et autres mm. ñu ngi ñaan yàlla loolu euh, vraiment fa mu nekk sax mu jóge fa ndax nangul ngeen président Macky Sall que ni def na ci ay jéego waaw xam nga déjà sur le plan sécuritaire am na yu bëri yoo xamante ni sax ah. moom ci boppam du ko wax waaw parce que enjeu yi moo tax mais man jàpp naa parce que en un certain moment nekk naa ci dispositif boo xamante ni dina am information yu ma am mm-hmm. ci sous région bi mm-hmm. te xam naa ni def na ay liggéey def na ay jéego mm-hmm. ci euh, su le plan sécuritaire am na jéego yu mu def ci ci euh, ci euh, ci forces armées mhm. am yu mu def ci police et gendarmerie et mhm. autres avec par exemple l'ouverture des brigades et tout ça ci mhm. ci le long de la frontière loolu lu baax la mais dafa am pour man euh, euh, problématique boobu am na danger boo xamante ni nit war nañu ko xoolee Euh, euh, nañu def lii rek def nii te ñaan yàlla dara du fi ñëw. Mm-hmm. pour man jàppee ma ko. mais dafa war a dëgër. da non seulement dafa war a dëgër. Mm. mais da nga war a nekk dans l' int la dans l' dans euh, dans dans. Euh, dans la dans dans l'anticipation. Très bien. waaw da nga war a anticiper. Mm. waroo ne rek bon nañu def lii bu ñu defee lii defee lii mais mm. il faut que dans l'anticipation aussi. Mmh. solidarité avec les pays voisins c'est très c'est c'est très important. Mmh. parce que tey boo jëlee dëkk bu mel ni Mali. Mmh. depuis quelque temps il est vrai que man d'accorduma ci seeni décision am na décision yu bëri yu ñu jël yoo xam ne man ànduma ci mais suñu suñuy suñuy dëkkandoo ñuy suñuy suñuy mbokk lañu mm-hmm. et ñooñu situation difficile bu ñu nekk mm-hmm. ñun waruñu toog rek di di leen xaar wala ñu ne ok nañ dem CEDEAO ñu xool nu ñu war a def ak ñoom pour man warul demee noonu pour man ñun dañu war a actif ci mbiru Mali dañu war a xool dem gisee les autorités maliennes mm-hmm. xool ak ñoom puisque ñoo fa nekk. Mhm. pour amul keneen ko fu amul beneen interlocuteur. Mhm. donc il faut que ñu waxtaan ak ñoom. c'est vrai que man d'accord ma ci coup d'état. Mhm. mais toll nañ foo xamante ni ñoom ñoo fa nekk. te ñu ngi am ay partenaire yu jógee kenn xamul fa ñu jóge ak kenn xamul lu ñu doon. loolu ci sous-région bi baaxul ci kenn pour man wax na war nañu rap approché wu dem waxtaan ak ñoom. xool dans quelle mesure ñun la leen mën a dimbali pour réformer seen i seen i forces armées parce que mmh. c'est important mmh. et je pense que ñun ci sous région bi rek mmh. am nañ assez de capacité sur le plan des forces assez de capacité pour dem dimbali ñu mel ni Mali wala Burkina wala feneen très bien alors docteur maintenant danga ñuy wax euh, axes yi nga mën a jàppale sénégalais ba tax man Fatima su ma duggee ci euh, mbañ gàcce bi ma jël këyitu docteur Kane docteur euh, Ousmane Kane ma votel ko qu'est-ce que vous proposez en matière de projet mhm. lan yan plan nga ñu mën a tegal pour que panier de la ménagère bañ a souffrir comme ni nga koy waxee ndaw yi am xëy comme da ngeen jàpp ni am lajjite def ci am ci de la part de nos actuels gouvernants waaw euh, xam nga suñu projet de société dañ ko tënk mm. euh, euh, ci ci sept points te sept points yooyu mm. ni ñu ko xalaatee mm. jóguñu rek ne sept points la dañu dugg ci biir réew mi waxtaan ak nit ñi. Mm. te loolu yàgg na waxtaan bi ñuy waxtaan ak Sénégal depuis 15 ans ñuy waxtaan ak sénégalais euh, dem nañu ba tënk li nga xamante ni moo war a nekk priorité ci Sénégal tey mm-hmm. niñ ko tënkee mooy réew bala ngaa wax dara li ñuy wax wolof yi ne bala ngaa naam. bala nga ne naam ne fa euh, li ñu li ñu wax en priorité mooy la sécurité la paix et la cohésion sociale loolu. ñetti yooyu bu ci nërmeelu rek kenn ñaanu ko yàlla. dañu war a def de le tout ba suñu force de sécurité yi. de défense et de sécurité ñu jox leen capacité yi ñu soxla. def réforme yi nga xamante ni loolu ñëpp am ñoom ñi nekk ci biir xam nañ réforme yi ñu war a def loolu yëpp ñu def ko pour ñu mettre leen dans de bonnes conditions yoo xam ne dinañu mën a. sécuriser les frontières parce que important mhm. mais menaces yi léegi menaces yi du menaces yi ñu amoon bu njëkk mhm. menaces yi dafa changer léegi donc nañu def réforme ci loolu def renforcement de capacité de telle mhm. sorte que nañu am jàmm jàmm ji c'est important loolu euh, chapitre la boo xam ne moo gën a bëri parce que jàpp nañ que ni c'est important li ci tegu mooy l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes c'est-à-dire euh, euh, ndaw yi lan la ñu war a def de telle sorte que ndaw yi ci gën a bëri. Mm-hmm. bu ñu soit bu ñuy jàng bu ñu génnee am liggéey ñoo xam dañu bàyyi jàng ñu dugal leen ci ay centre de formation tàggat leen. Mm-hmm. ñu am ay métier parce que ku amul métier mënu am liggéey amul booy liggéey it mën nga am liggéey boo xamante ni nga utiliser sa doole rek. Mm-hmm. te loolu bëriwul donc nañu créer euh, nañu gën a liggéey ci formation professionnelle. ak ak ak formation qualifiante nga xamante ni bu ñu génnee dinañu mën a am liggéey. te liggéey yooyu aussi dañ koy basé ci ay. secteur yoo xamante ni secteur yooyu bu ñu ko développé comme ni ñu bëggee xale yi mën nañu dem liggéey ci secteur yooyu. Mm-hmm. à commencer par l'agriculture la pêche loolu yëpp li tax xale yi par exemple am na ñu bëri ñoo xamante ni sànq maa ngi lay wax que <laughs> les politiciens ñoom ñooy riche fii au Sénégal. Mm-hmm. mais damal yeneen dëkk mais les fermiers ak les agriculture mais ñooñu ñoo gën a riche. ñoo ëpp alal ñoo mais Sénégal tey fu mu toll nii am nañu am nañu àll bu bu bu yaatu. Mm-hmm. yàlla may nañu aussi euh, euh, ay cours d'eau nga xamante ni mun nañu def euh, agriculture d'irrigation mm. mën nañu utiliser la pluie mm-hmm. donc hiver agriculture mm-hmm. mën nañu ko développer comme ni ñu ko développer dans les autres pays mm. puisque ñun am nañu les ressources humaines am nañu doole am nañu am nañu ndaw yoo xam ne am nañ doole mën nañu liggéey mm-hmm. mën nañu defar agriculture ba de telle sorte que xale yu bëri dinañ dem ci biir agriculture dañu ci am benn complexe mm-hmm. du ñu nekk ay paysans dañu nekk ay agro euh, business mm-hmm. ci loolu la dox di ci am di ci tedd di liggéey fii di tedd fii di di di di dund fii te du ñu jul dugg ci ay gaal di dem di dem à l'extérieur d'accord ba loolu numéro deux rek la mooy emploi des jeunes et autonomisation des femmes. des femmes mais les femmes aussi damay wax tout le temps naan euh, gàcce ngaalaama jigéenu Sénégal. lu mhm. tax parce que boo yeewoo suba teel. Mhm. soit ngay liggéey wala ngay dem sport. Mhm. mais jigéen yi ngay gis ñi yor seen i paan takk seen i ndigg di dem liggéey fajar <laughs> ñoom rek ngay gis donc vraiment loolu it lu ñu war a rafetlu la mais dañu leen war a jàppale aussi te loolu waxu politique surtout nag président ñu am accès si euh, si terre yi waaw gis nga góor yi rek ñooy am accès ci terre yi au foncier waaw ñun dañu war a am accès voilà dañu war a am loolu dafa moom loolu mu ngi ci biir mhm. suñu projet de société l'accès des femmes au foncier surtout le foncier rural mhm. le fon le foncier euh, euh, euh, de l'agriculture aussi mhm. am ay terre pour pour mën a bay ñun suñu maam bu jigéen mais dafa amoon ay terre ci fan yi ñu may dégg tey ñu xam xam nañ li may wax waaw donc loolu c'est important foog ñu delluwaat ci foo xamante ni jigéen mm. dina am accès euh, à la terre dina am aussi mm. accès aux, aux nouvelles technologies mm. am accès accès yu góor war a am yépp jigéen daf ko war a am loolu mooy euh, euh, loolu mooy seen i droit te loolu moom c'est pour moi c'est un minimum. très beneen point. Mm-hmm. bon le troisième point. Mm-hmm. c'est vrai que dama ko tronqué parce que booy wax emploi des jeunes. Mm-hmm. nga wax autonomisation des femmes. mënoo bañ a wax financement. nga changer pour les femmes mm. nga changer le paradigme de financement mm. bi nga xam ne moom moo fi nekk mm-hmm. par exemple dañu ne euh, euh, euh, microfinance yàgg na fi mm-hmm. mais en certain moment il faut nga évoluer mënuñu continuer rek nekk ci microfinance man am na fu ñuy doog a commencé wala ñi nga xam ne seen vraiment seen seen situation dafa nekk vraiment situation bu doy waar mm-hmm. ñooñu mën nañ commencé ci microfinance en attendant ñuy ñuy développer seen seen seen capacité. mais il faut que ñu xoolaat euh, système de financement yii fi nekk. Mhm. ñu man ko ñu mën ko euh, euh, améliorer. Mhm. de telle sorte que jigéen ñi nga xam dañu nekk ci entrepreneuriat wala ñu nekk ci ñu nekk ci commerce. Mhm. wala ñu nekk ci transformation. ñu mën nañ la dimbali pour ñu mën ko def. te loolu soo ko defee. yaa ngi dimbali les les familles. yaa ngi dimbali xale yi. yaa ngi dimbali Sénégal ku dimbali jigéen. vraiment. jàppal ne rek yaa ngi jàpp yaa ngi. dund jàppale nga askan bi yëpp. <laughs> merci. d'accord le troisième point président. bon le troisième point. Euh, euh, dañuy faral di wax. Euh, mhm. l'éducation mhm. éducation vraiment c'est très important parce que loolu mhm. boo xoolee lu bari ci éducation lay xaw nërmeelu uh-huh. donc c'est important ñu def des réformes en profondeur ci uh-huh. éducation uh-huh. xool li ñuy jàngal xale yi ndax mu ngi leen di jariñ dès le bas âge da nga war a commencer tàggat xale di ko tàggat loo xamante ni dina am utilité ci société bi di ko tàggat ci euh, euh, euh, civisme di ko tàggat ci patriotisme. di ko tàggat ci ay valeur yi nga xamante ni mooy valeur valeur am dëggantaan. valeuru Sénégal. Mm. lan la jom. Mm-hmm. Mm-hmm. kersa. mandute mm-hmm. euh, worma loolu yëpp dañ ko war a jàngal suñuy doom. mais en plus de ça aussi. teg leen ci yoon boo xamante ni bu ñu demee ba am euh, baccalauréat. Mm. dinañ mën a continuer ay études supérieures. Mm. wala ñu dem jàngi yeneen formation def yeneen formation yoo xam ni. dina tax ñu mën Euh, euh, ñu mën a liggéey. mën a am utilité ci ci ci société bi. dama yaakaar na nga yàkkamti. <laughs> waaw <laughs> waaye innovation technologique aussi <laughs> c'est important parce que dañu nekk à l'ère du numérique. Uh-huh. ak internet. Uh-huh. te dafa am lu bëree lu bëri lu bëri loo xam ne dañ ci tardé ñun. et foog ñu insuffler uh-huh. innovation technologique. ci domaine domaine yëpp. comme ça ñu mën a gaaw a dem ci développement parce que tant que. ñu ngi def ni ñu daan defee depuis le dix-neuvième siècle uh-huh. alors que yeneen pays yi ñoom raw nañu bu yàgg uh-huh. il faut que daal dès le bas ñu commencé tàggat suñuy xale uh-huh. ci technologie te affaire bi du réseaux sociaux loolu moo ci gën a tuuti te loolu sax <laughs> vraiment war nañ ko xoolaat war nañ ko xoolaat voilà Euh, euh, dama dama dañ da nga bind ci lu bari ci immigration irrégulière euh, comme suñu nawle boobu nga xam ne génn na ci àdduna ndax mën nga ñu résumer yenn préoccupation ak jox ñu quelques solution si mhm. jamais vous atteignez li nga xamante ni mooy la magistrature suprême incha allah. waaw mais wax commencé woon nañ ci wax xam nga ñiy de ñuy jóge fii di dem ñi ci gën a bëri wax ma ñëpp. Mhm. mais ñi ci gën a bëri dañuy dem parce que. amatuñu dañu am benn désespoir boo xamante ni amatuñu yaakaar parce que bu ñu xoolee sax ñi leen jiite. Mhm. joxuñu leen sax euh, ay signes que ñoom bëgg lañ leen dimbali. loolu mooy tax ñu ne kon puisque ñun fii ñu nekk nii. Mhm. Euh, vraiment kenn dimbaliwuñu ñu ngi suñu réew c'est vrai mais réew mi dañ fi am désespoir. Ah loolu moo tax. loolu moo tax ñu ne xaaral ñu dem au moins jéem wuti feneen même bu ñuy euh, ñàkk seen bakkan garaaw mhm. ñu ne ñun dafa am importance. ñu teg loo xamante ni. xale yi dinañ ci gis seen bopp. Mm. te xam ne ñoom mun nañu toog fii man fi mm. tekki man fi liggéey. Mm-hmm. te loolu mooy li ñu doon wax sànq ci emploi des jeunes. ak employabilité parce que jeunes yu gën a bëri tey. Mm-hmm. dañu laaj. Euh, euh, euh, dañu laaj ñu ñu ñu ñu tàggat leen. Mhm. ci benn domaine nga xamante ni bu ñu leen ci tàggatee dina ci mën wut liggéey. Mhm. am na ñoo xam ne aussi dañu nekk ci njàng bu xaw a sori tuuti. Mhm. ñooñu ut am nañ ay ay ay bëgguma tamit bon parce que léegi boo waxee après mu nekk leneen. waaye dama bëgg xam ne ne que am nañu ay idées yoo xam ne bu ñu ko bu ñu yàlla defee ba ñu falu. am na lu bëri loo xam ne dinañ ko teg. ci ay innovation mm-hmm. sur le sur ce plan là mm-hmm. xale yi dinañu am liggéey ñi ci gën a bëri bokk dinañu am liggéey mm-hmm. waaw te fi ñu ko teg teg lu lu fu leer la parce que tout simplement gis na nañ ko defee feneen waaw dem nañ en en Asie du Sud-Est xool ñoom yenn nan la ñu régler seen yenn kii lu tax ñoom seen chômage par exemple chômage da bëriwul ñu dem feneen ak feneen Amérique gi ñu nekkoon aussi gis nañu ñoom yan levier la ñuy utiliser pour chômage bi bañ a bañ a bañ a bañ a bëri. donc loolu yooyu yëpp. Hmm. bu ñu ko tiwee. Hmm. tënk nañu ko tënk nañu ko euh, euh, euh, bu soobee yàlla bu bu ñu bu bu yàlla defee ba ñu ba Sénégal yi wóoluñu. Hmm. yóbbu ñu pale. bu soobee yàlla ñu commencer dérouler. projet de société boobu. te xale yi bu soobee yàlla dinañ am ay xëy ci agriculture dinañ ko am ci yeneen domaine ci entrepreneuriat. et même dinaa leen sax wax benn rek exemple bu ndaw. li ñu tuddee les call center ma damay gis sénégalais yi xale yi jeune sénégalais yuy dem euh, euh, en Europe. Mm. wala fii au Maroc dañuy dem liggéey ci call center. parce que dañu dégg français. macha allah dañu dégg anglais seen voix dafa neex dañu gaaw a xam langue dañu gaaw a. Mm. Euh, verbe facile. Mm. verbe facile donc. mais xale yooyu di dem Maroc mais pourquoi ñuy dem Maroc mënuñu ko def fii. et pourtant fii am ñu espace xale yi mën nañu jàng mën macha allah dégg nañu français dégg nañu anglais dégg nañu mais nañ ko def fii ñun loolu bokk na ci loolu nañ ko bind xaatim ko bo ñu def ay ay centre d'appel yoo xamante ni mm. ku am DFM rek mm. mun nañ la defal formation nga dem liggéey. très bien waaw te loolu dinañ ci ànd aussi ak le secteur privé parce que secteur privé. Ah. ñu ci bëri am nañ yenn yenn yenn yenn idées yi mais dañu laaj aussi accompagnement. très bien euh, président en une minute rek euh, temps bi dab nañu en une minute euh, da ngay dem seul wala da bokk ci coalition. dañu dem seul ci su ci bannière Union Sacrée du Sénégal. te Union Sacrée li tax mm. ñu créé ko. Mm. dañu nekkoon ci situation boo xamante ni réew mi euh, euh, ñëpp dañu jaaxle woon. Hmm. Euh, mu bëri violence physique bëri violence verbale. nit ñi amatuñu sax fit. Hmm. pour génn. waaw ñu nekk situation boo xam ne ñu bë hmm. ñu bëri même bitim réew ñu ngi laajte yéen. Sénégal lan moo ko dal ñun ñu ne nañu ñëwaat ci Sénégal ñëwaat suñu réew. Euh, euh, euh, woo def un appel mhm. solennel woo toutes les forces vives ne leen ñëw leen ñu nekk autour de la table ñu waxtaan ci nan la ñu mën a génnee ci lii loolu moo indi union sacrée ci ginnaaw ga mhm. ñu décider que Euh, pour mën a def réellement lu ñu bëgg def. Hmm. il faut que ñu laajte réew mi. loolu moo indi ñu laajte réew mi. waaw loolu nag du coalition. Hmm. mouvement citoyen la boo xamante ni bëri na ay doomu sénégalais. mais du dem ci benn coalition. waaw non ñun. xam nga ci euh, premier tour bi. Hmm. dañu jàpp que ni ñun yàlla mun na def ñu dem ci suñu seul ci suñu coalition. d'accord ba pare am ay ay résultats yu baax. bu ñu jëlee deuxième nag. Euh, opposition bi. ñu ngi leen dinañ leen woo <laughs> ñoo ñoo jàppale ñu. ñu mën a daaneel ñu fi ne président a daaneel ñu fi ne mën a doxal mën a transformer le pays. très bien lan ngay tàggoo bi président euh, euh, ñu ngi lay ñu ngi lay ziar ñu ngi lay kontaane bu baax a baax alors lan ngay tàggoo bi euh, ak lan ngay ban rendez-vous ngay jox. Sénégalais di leen remercier yow déjà. ci accueil bi accueil bi ak sa yëpp. Mm. vraiment accueil bu rafet. accueil bu bu bu jaar yoon. maa ngi la ciy remercier. jërëjëf di remercier ci invitation bi. Mm-hmm. di wax ni sénégalais yi. Mm. fu ñu mënti nekk Sénégal ak ak diaspora nañ ñu contacter ñi nga xamante ni dañu bëgg Sénégal jaaraat yoon ñu transformer ko mu nekk fa mu war a nekk ñu ngi leen di ñaan ñu allez ñu ñu ngi leen di ñaan ñu contacter ñu pour ñu mën a liggéey ensemble parce que Sénégal dafa soxla changement mhm. Sénégal dafa soxla dafa soxla ay sang neuf mooy que ni nit ñoo xam ni seen loxo yi dafa set. Mm. kenn mënu leen a tu tuumaal ci dara. Mm-hmm. te Sénégal moo leen ñor. Mm-hmm. Sénégal moo dañu bëgg Sénégal am patriotisme. Mm-hmm. bëgg a ñëw pour liggéeyal Sénégal. incha ku ci nekk boo amee xalaat boobu. ñu ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñun. ñu dugg ñu ñu ñu dem ci ci population bi. Mm-hmm. gisee ñoom mm-hmm. waxtaan ak ñoom expliquer leen suñu projet de société. Mm-hmm. te woor na ma ni bu soobee yàlla au soir du 25 dinaa ñëwaat fii pour wax la. <laughs> non dinañ ko couvrir incha allah président <laughs> dinañ ko couvrir. merci beaucoup euh, président Ousmane euh, euh, euh, président Union Sacrée du Sénégal candidat à la candidature présidentielle 2024 Hilaire Riba revient demain incha allah moi je vous retrouve à 21h pour la grande édition du soir en attendant vous savez. toujours ce que vous avez faire répondez-les bien autour de vous bonne soirée